pense que il faut ñu ñu gérer suñu <coughs> suñu yenn joueurs yi ne pas les. mettre hmm? tout, le match par exemple. am nga aussi day am benn moment boo xam ne c' est intérêt coupe d' Afrique ngay dem tu es équipe championne d' Afrique. Hmm. boo doo Cameroun yow yaa jël équipe nationale bi passé yaa jël euh, coupe d' Afrique bi passé am dara lu la la dal mu peser ci sa dëkk je touche du bois on a fait la coupe du monde sans Sadio Mané. oui. donc am na yoo xam ne. pour man matchmaker ak ay affaire yooyu yëpp mën nañ ko état dafa bëri doole. Hmm. mën nañ ko négocier mën nañ ko wax mais dafa am ay joueurs yoo xam ne dafa am ay joueurs yoo xam ne parce que dans un match hmm. boo xam ne <laughs> dëgg la dafa am dara lu am <coughs> dans un match boo xam ne kii nga war a dajal dans trois mois mun na gaañ sa yaakaar de mais tout tout est possible <laughs> non everything is possible ah lépp lépp possible donc pour man il faut que quand même suñu yenn joueurs yi pour ne pas les exposer à des blessures yoo xam ne ñaan ñu ko yàlla mën na mën na kii loolu tamit c'est des techniques yoo xam ne li Bouba wax lu ma koy ajouter waaw li Bouba wax dafa am ba pare moo tax deuxième match bi naqaree dina xam nga ñun dañu waroon ak Mali